salaamaaleykum Amara Dofouté Sénégal ah Maroc tey jàpp na Brésil fi daawu ko lonkal ko deux buts à un ci match amical mu amaloon kon nag Maroc mu ngi confirmer jaloore yi nga am yu am solo yi nga xam ne def na ko ci coupe du monde bi weesu waaw ah, te nag ci match bu rëy la Maroc gagné Brésil ci noonee nag may poser question ñun suñu équipe nationale lan la ñuy xaar pour mën a jël match amical équipe yu mag yi tamit. ñu resté suñu koy rek jàpp ay Eswatini jàpp ay Soudan ay Benek ay match amical yoo xam ne nii saa yi mooy loolu du mën a xam sa niveau mondial Maroc bañ demee coupe du monde bañ demee Angleterre danoo teg ci côté de avant boobu match amical yu mag la doon jël équipe yu mag la doon jël di leen dóor wala muy nul ak ñoom du jouer match yu metti Maroc ba mu ñëwee mondial dafa adapté wu carrément ci équipe bu mag jàpp Belgique fi daaw Espagne fi daaw jàpp Portugal fi daaw mu ñëw ak France match bi xaw a naax saay te sax sonaloon nañ France waaw tey jii mu ñëwaat match amical si faaye ki ñu naan Brésil kon suñu équipe nationale Sénégal dama koy xaar foofu yàgg naa ko clamé naan ay Angleterre ay Belgique ay Hollande ñooñ laa bëgg amical nga mën a peser sa niveau nga mën leen a teel a tàmm pour compétition yu mag yi mel ni coupe du monde après complexe du am envers eux suñu diggante complexe du si am muy noonu dañuy ñëw ful ful ful football ak fayda ah nag xam nañ leen ñoo bokk ya championnat yi ñuy football Sadio Mané Bayern gam nekk foofu leader la fa Ismaïla Sarr Watford sa Gana Gueye Everton Koulibaly Chelsea Edouard Mendy Chelsea et dootu joueurs yoo xam ne ay leader lañ ci seeni club ñoog tubaab yooyu ñoon ñooy jàmmarloo ah buñ nekkul titulaire ñooñ du nekk titulaire seen kaw kon nag yooyu problème nañ jël match amical équipe yu mag yi di jàmmaarloo ñoom di leen gagné waaw ah, maa ngi dégg nag ñenn ñi ci Maroc jaloor yi mu def coupe du monde ba ci sax euh, match amical yi nga xam ne mu ngi koy dóor équipe yu mag yi ñenn ñi dem ba naan coupe d'Afrique bi di ñëw moom Maroc doo koy jël ak ñoom seen c'est vrai coupe d'Afrique bi du yomb waaye bu ñu ñëw rek ne Maroc koy jël noonu coupe d'Afrique ak coupe du monde c'est diamétralement opposé c'est différent totalement différent waaw bu dee coupe du monde terrain yi yaatu na seet na pelouse yi dal na amul benn problème bal bi day daw carrément en plus foofu dañuy jouer coupe du monde foofu duñ teg ay bloc bas di la di yàq football ak ñoom seen ñoom dañuy génn football bu ko defee espace dina am di ngeen mën a football seen biir bu yàlla defee ci yow talent nag danga ciy génn waaw mais bu dee Afrique loo am am talent am am talent waaw il faut nga am football bu am xadar football bu intense football bu costo na équipe africaine yu ci bëri bloc baa la ñuy teg buñ xamee ne yaa leen mën du génn football ak yow loolu waral à chaque fois coupe d'Afrique day mel ni ku waaye de waaw faut nga salte football teg sa bakken ci terrain bi moo la ci génnee mu ngi noonu Coupe d'Afrique bi du dana neex dana yëngu Côte d'Ivoire équipe bu mag la yore Maroc équipe bu mag la yore waaye du caagin équipe bu mag la yore day ñëw rek raafale lam def ko du moonu jaay ko mu tax war a raafale non non Coupe d'Afrique ak Coupe du nag mën nañ koo jël ku ne war na koo mën a jël mais bu ñëw rek ne moom moo ko moom ak ñoom seen équipe nationale Sénégal am fi Côte d'Ivoire am fi ah euh, Nigéria duñ ko dóor keroog bër ci dem moo jaay waaw Cameroun tamit naka noonu. en tout cas dana neex dana yokk jàmm ci yéen ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee loolu équipe nationale Sénégal lu muy xaar pour am match amical ak équipe yu mag malgré jamono ji ñu ngi ci match éliminatoire Coupe d'Afrique ah ci la nekkoon waaye la la ñuy xaar ñun pour suñuy ami match amical ñu am amical yu mag te bàyyi Eswatini nekk ay Gabon ay Afrique du Sud ak ñoom seen jéggalu gaay